salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi yéen a ngi ci seen YouTube euh, Sango Gouma TV euh, yéen a ngi ci émission yaatal tey nag ñu ñëw Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñëw ci quartier bii ñuy wax Jaxaaw seet si fi ndaanaan bu mag boo xam ne kenn dootu ko présenté ti àdduna bi yëpp xam nañ ko muy mbay Dozé mbay ñu bàyyi la nga nuyoo askan wi. ah ah maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax di kontaan ci seet bi ngeen ma seet si ba pare di remercier Sangoguma TV ah mu nekk chaîne boo xam ni euh, ñëpp dañ koy suivre ñëpp dañ koy xool kon boo leen ma seet see dama ciy kontaan trop rawatina mag ngeen fekk ma fii jaxaw suuf ah fii ci Avis Pro ah, muy doy waar kon nañu sangu wala sangooguma rek. waa Mbaye ñu bëggoon euh, xam kan mooy Mbaye ñu bëggoon xam kan mooy réellement mbay doose waaw soxna si mbay moom euh, nit la rek bu juddoo euh, jaxaaw màggee jaxaaw euh, ba doon li ma doon tey ñu xàmmee ma ci Mbaye Dozé donc nekk benn artiste boo xam ne dama gëm sama bopp xam li ma yëkkati donc ndax nekk artiste du ay fo du ay caaxaan dafa laaj jàng dafa laaj chemin bu gudd la donc kon ku yàkkamte rek mënoo cee bokk moo tax nag ma nekk ci nekk ci ba tey le monde entier nangul ma li ma doon ah gis nga dal mi ngi noonu dal affaire bi dal mbay mbay dalé ngi ni sen mbay la waaw. <laughs> mbay bo gën nañ la laaj lan mo la motiver ba nga dugg ci théâtre ci milieu théâtre tay mu doon milieu bo xamanteni ñi gaay ñi ngi naan metti na ñi ngi naan yomb na ñi ngi naan yombul ñi naan art bi day fay ñi naan fay yu daal ñu la doon laaj lan mo la motiver ba nga dugg tay ci milieu théâtre waaw euh question bobu dama ci rafetlu trop art mom metti na c'est très dur parce que chemin bo xamné la dafa gudd xamoo kañ lay jeex

tey Abdou Aziz ñaan nañu comme affaire bi dafa dafa dafa nice léegi ñi nga xam dañuy jàng nañ dem continuer seen jàng ñi nga xam ne art bi moom moo leen intéressé dañuy jàng métier wala bàyyi nañ jàng donc ci lañu formé Soleil Levant Junior moo juddu ba léegi nii. dëgg la Mbaye ñu bëggoon a xam sa diggante relation ak yaa ak waa Soleil Levant lan mooy seen relation yéen sa diggante groupe Soleil Levant. waaw loolu moom dama ciy sawar di ci tontu mag la ak rak. donc waa mag la ak rakk parce que euh, Cheikh sama grand frère Cheikh sama grand frère Aziz sama grand frère donc ñeneen ñi ci des aussi tamit samay mag yu baax lañu donc loolu la ñu seex am ay relations yu rafet ba pare bokk ñun ñëpp jógeendoo jaxaaw ba dara nekkulee dara ba tey dara nekk dara donc ñuy ànd ñooñu sumay samay kilifa lañu samay kilifa lañ te aussi ñoo ma tette ci lu bëri ci aar gaa bi may ñëw fekk na am na lu ci jot a saf mais sàppali bi ñoom ñoo ko def. Nous ñu bëggoon la laaj jouer sa carrière théâtre ba ana marqué sa carrière théâtre sa carrière artiste lan marqué. je pense que li ma ci marqué euh, pièce bi ma parce que je suis pour jouer si suis xalaatuma dama de liggéey bu que je def la rek ma def ko mais bi succès bi man ma ak ñi ñi man ak après je def man moma moma moma moma xawa ma parce que nit def na lu ne yalla tegu ci loxo nit lu il passe inaperçu mais nga def trois séquences à bi marqué. mbay nag am na loo xam ne àdduna bi yëpp koy laaj mhm. mbay yow da ngay jooy rek <laughs> mbay jooy yi pour lan la jooy yi am dégg naa sax ñu ni cummikaay la wala dosé la wala moo waral jooy yi yow mbay dañ lay sax ngay jooy jooy yi moom lu ko waral daal loolu lañ bëggoon a xam. Euh, laaj nga ma lu neex parce que aar ñaari mbir moo ci am xam nga bu njëkk euh, di jooy moo gën a ñàkk fayda ci aar booy jooy am na nooy jooy rek day ñàkk fayda. mais bas wa senegal xamnañ nañ ni Mbaye Dozé dongay joy askan bi di ya lolou yalla moko ko dogal waaw bu dee ay cumikaay ah baxna mi ngi avancer dé wa budé lenen tamit ma ngi gis sama bop ndax ben ax gagné rek fofa toj ñi ko mën bëriwul. <laughs> mbay nit ñi nenañ lay faral di gis ci milier artiste pour lan lolou manam artiste fi ñi daje duñ lay faral di la fa gis lu waral lolou da nga amul ak ñom ben relation bi wala lan moko waral dal non man mën naa yëkkati sama loxo ci àdduna man maay artiste comédien boo xam ni aw ma benn artiste xaar ma yàlla maanaam nekk ma ci yooyu sax mais peut-être dafa am yenn xëy na dajaloo yoo xam ni waaw man duma ma ciy mën di yegg am na yoo xam ni tamit duma ma koy yëg mais lu ma yëg te mu nekk sama liggéey donc dama ciy dem mais lépp lu ma yëgul wala lu ñu ma yëgulul wala lu ma warul dem noonu du ci dem mais ñëpp nag samay xarit lañ parce que ku ci nekk am na lu ma seq ak yow muy bu rafet. waaw mais man damay damay wax ak ñëpp damay kaf ak ñëpp damay jokkoo ak ñëpp waaw. dëgg la mbay ñu la doon laaj quartier bii nga dëkk di Jaxaaw lan mooy sa relation ak waa quartier bi sa digganteeg waa Jaxaaw ndax dafa mel ni sopp nañ la loolu macha allah waaw ñu bëggoon xam nag lu waral loolu ba xam yaatu la wala lan moo waral loolu sa digganteek waa Jaxaaw. xam nga bi ngeen ñëwee dama koy wax ñëpp di ko dégg bi ngeen ñëwee sama kër ngeen ma fekk may wax ak sama benn cousin man leen jiitu leen ma fii bi ngeen di ñëw xam nga tàgguwoo leen fii. man bima ma taguuma kenn ci xaw dama leni ni man amu sa len sante sant xam nga lan moo bok damaa ci ñom parce que fi la juddo fi la magge fi la nekké lepp gis nga lima ma ni tok ni né ne sama ñambur buma nexé def ay tanku nen aussi tamit tok waxtaan paka laa ngi ni ba ma xamee yagul day fréquenté jaxaw bo leen ko laajé lu mu xam ci man ci jaxaw mën nako wax damay wax ak ñep di kaf ak ñep di ree ak artiste bi nga doon lool yalla mo la ko def mais nit ñi ñoo la ko nangul boo amoon neneen noo mel nit ñi kenn moomu leen joxal lañu lekk joxal ñu naan mais man quartier ma dëkk quartier bu noble la dafa neex koo yëg mu yëg la mais koo lijjantiwul faalewu la très sincèrement ñun nag dañuy demlante di dikkalante di kaf di fo di ree moo tax gis nga fu nekk gis nga mag ji pro waaw dañuy jékki-jékki rek ñun sàjj fi xale yi takku ba mel ni naanaa ah ñu sàjj def lu ñu saf jeex na tàkk ñun yooyu ci ci yooyu daal lañuy ñuy dox waaw dégg naa nag mbay yow da nga neex tank. dégg naa tànk boobu macha allah da neex ñu gis ne mbay nitu jam nga ndax bi ñu ñëwee fi dalal nañ ñu accueillir ñu Amana so leen ko jiwul woon xeyna duñu ko defal ñu lay laaj mbay tekkaaral gi lu ko waral ndax gën nañ la gis loolu macha allah. xam nga lélé nit da ngay nekk ci Euh nit da ngay nekk ci bërepp te do bëgg di changer euh, équipe nationale kenn du ko changer te boy dem ci club tamit da ngay dem ci club bu baax donc léeg équipe nationale day noppalu. donc ñii ñi ñu ngi dem ci club yi mais man Mbaye Dozé maa bëggul def loo xam ni comme tey mbay Dozé bu doon def dara bu ñu gisee ni Mbaye Dozé def na dara rek lu bokkul ak li la Levant def dama bëgg ñu gis lu wóor ñu xam ni waa ji nii rek la mën a demee parce que li nekk ci bopp bi li nekk ci xel mi ak xalaat mi ak li ñu yaakaar ci moom rek la ñu jox léegi nag bu équipe nationale bi di noppalu da ngay noppalu ànd ak ñoom boo gisagul lu leer ci biti nga def tekk tekkaaral sauvegarder li nga xam ni moom mooy sa sa image comprendre nga euh, ma fu ne nga ne fa Naam Dramé tournage bu nekk nga ne fa salaamaaleykum lu ñu tëb yóbbu la lu ñu la bëri yóbbaale la loolu rek la mais doose moom ak ay bagaasam mu ngi ci armoire yi ma tëj waaw. Mbaye macha allah mbay Dozé bi lu ko indi turu mbay Dozé bi may digg naa nag da nga bëri tiitar digg naa Dozé moom sa yëf la ñu bëggoon waral lu lan moo indi Dozé bi macha allah. xam nga dañ ne sawkatu lal bu ñu la koy jiiñ foofu muy lóor waaw te man xam naa ni. yàlla mayu ma rafet gi tax ñuy wax waaye damaa jantal waaw loolu loolu sunu borom da koo def loolu moom min def mënu koo dindi léegi man ku ma waxoon dinañ ma woowee beneen tur bu dul sama tuur ma koy wuyu daf may yéem dañ may war a yónnee xaalis sax na ma ma def mbay lan xam nga dosé du sant comprendre nga mais euh, rôle mooy topp doomu aadama moo tax ma lay wax na tolof tolof suñu borom li mu ci def dafa garaaw donc. Euh, dañoo toog nii rek Aziz moom Aziz Cheikhouna comme xel mi dafa ñaw yàlla ko may dañoo toog ba benn guddi nii rek mu won dem si yàlla ji ak man ñu fekk ko këram mu ne ñu comme yéen si yéen ñëpp seen rôle da ngeen koo dindi changé ko jox ko ñoom Cheikhou ñoom Cheikh Ndiaye ak yooyu léegi xaar ma defal leen rajo maanaam ñun dañoo dolli rek ay séquence defal ma séquence piscine ba bi ma daam seen di simmee ak bi ma nekkee ci lycée bi ñu ne ma nag sapeur ngay nekk da ngay ba rafet mais xale yi da nga leen di dóor rek. waa di di di di ab yëre jàmbur di sangu te mënoo feey ah ay yëre jàmbur te loolu moo nekk ci town bi boo xoolee gentleman yu ci bëri dañuy nax yaay booy yi xale jigéen yi tamit gën a waaye di parce que waaye di gën a waaye di mun a weesu nit yor oto xooloo fu mu lijjante oto bi xale yi na nga leen dugal ci oto rek yéegal vitre yi laal clim may leen waali sekk bi pousse pousse coussin bi tuuti ñu tëdd jàpp seen ñaambur kër goo xam ni xamuñu diwa ko moom wala diw moomuñu ko yaa ngi dégg gaa yaa ngi fi di ñëw vacances di tabax seen kër di fa bàyyi seen xare di di tukki bu ñëwee gondi la kër gu am piscine ak lépp nga yaataa yumbe yaakaar ne waajaa ngi nii su paree ndeke yow waa ji yoroo lu suukar baraada te mag buy naa ndox mu tàng suukar saa tax ah, mi ngi noonu moo tax saa ne ma yee xale yi wax di yee euh, yaay booy yi ci niñ leen di naxee ci niñ leen di dóoree. ah ngi noonu wa kon mbokk ñu fatale leen yéen ngi seen seen youtube Sangoguma TV chaîne bu mag bobu nonu di leen ñaan rek ngeen abonné yéen ngi seen émission yaatal émission yaatal nak yépp lépp ay yaatu bo len ci gëna xamna xam na yeneen i leeral ñaan ngeen abonné wa kon mbay yow ñu continuer mbay ñi dégg dal né carrément mbay xalé jigéen la sonal dégg na mbay da nga jar xalé mbay mbay gi mbay mbay gi dégg naa macha allah yow mbay lu waral lolu mbay mbay gi non <laughs> ngone <laughs> ah waxuma ko dégg dama dégg rek. <laughs> ñom ñoo bëgg wax li ci mbay rek mbayam la jabar dé de. waa no mais xale jigéen ñi dañuy ñëw parce que ñii ay fans lañ ñii dañ lay bëgg pour pour pour teral la ah ñii dañuy bëgg pour saafante ak yow loolu c'est très normal mais man am naa soxna am naa doom ah je gère ma maa ngi dund ma koy gërëm bu baax ah Marème Touré sama jabar di nuyu suma doom suma xarit maam Sali xam nga mais xale jigéen ñi moom mënut a ñàkk dañuy dund ak moom ku am jabaru artiste ngay artiste xale yi jigéen ñi dinañ la topp toppewuñ la ndax dañoo bon toppewuñ la ndax dañu bëgg ci yow dara mais dañ lay topp di la suivre ndax li ngay def dafa neex soo koy def day gundaandaat seen biir xol yi kon saa ñu la gisee dañuy saafante ak yow di la béggee donc di di jëflante ak yow lu baax donc soo amee soxna nag mu gàtt xel wala miir euh, fiir trop yaakaar naa day xaw a compliqué mais doser avant artiste maa xale jigéen ñi man ak artiste maa xale jigéen ñi. maag ba may màgget tamit maag maag ñoom ah. <laughs> loolu dëgg la mbay ñu gis ne yow sa xol dafa rafet man mii xam naa ci dara nga nekk nit ku baax nekk jëmm ju baax te lu ma gis la te lu ma dund ak yow la mbay ñu lay laaj si diggante sa relation sa diggante yow ak Aziz Niang lan la loolu lañ la bëggoon a laaj. waaw relation boobu nag euh, mag ak rak la wax naa la ko sànq. parce que Abdou Aziz yaakaar naa ni 99 euh, boobu may wax moo yoroon troupe boobu boobu kenn xamu ko ñun kenn xamuñu moom a njëkk a yéegal sur scène maanaam euh, ñuy dem ci loolu ba créé Soleil Levant Junior ñu nekk ci 2005 ñu dem représenté euh, nag donc jaar ci lu bëri lu bëri bëri man ak dem si yàlla ji Kader moom moo ma initié moom ma tete dugal euh, waaw waaw mais Aziz ci boppam dafa def ci man lu bëri moom ma initié def ci man lu bari jangal ma lu bari ba tay suma nang suma ñame té micro di exprimer wu di wax ndax dañuy am tendance sa yu ma waxee rek ñu ma sha allah quoi mbay da nga mëna wax man leen sha allah c'est parce que loxoy ma jaar la donc suma suma suma mag la suma xarit la suma doomu nday la sama lepp la wax deug yalla waaw relation bu rafet la ñam wa ñu koy nuyu de passage mom nit ku bax la tonto Aziz nit ku bax la nit ku ma sha allah nit ku euh mbay ñu la doon laaj ni la mbay yow sëriñ ngay daw bari na trop macha allah ñu bëggoon la laaj ban est-ce que am nga ci série boo xam ne mooy sa série préférée moom ngay suivre di ko xool daal ci série yi nga xam ne ñu ngi koy gis muy daw. waaw man pratiquement peut-être xëy na du may am jot di seetaan yëpp mais de temps en temps bu maanaam si heure bu daw mën naa bañ am jot heure boobu noonu mais après chaîne réseau bi da ngay tëdd di relax yow boo ko seetaanul sax sa jabar da koy seetaan mais idole dam ko doon seetaan c'est bien fait. donc Pod et Marichou dama ko don seetaan parce que ay boy yo xamni dañu am talent dama ci gis sama bop man mine de rien biñ ñu yagul mais dañu marqué sen point comprendre nga donc maîtresse un homme marié gis nga euh, Miriam de Passe Halima ma koy suma xarit sama sama suma waye ngi non suma xarit on a travaillé ensemble mu nek nit ku ku ku ku baax su ma ci planche nak muy doxal di yëngu dafa am dafa am luma yek waaw dama ko doon seetaan parce que ay ay ay série yu nice la gaa yi ngi ñu ngi góorgóorlu seet li may déplorer rek ñu moytu yu am na yu ñu ciy dugal yu ci bokkul waaw yu ñu ciy dugal euh, waaw di ñu ciy dugal noonu te bokk ci nañ ko dindi parce que euh, terrain de football 22 euh, acteur yaakaar naa moo ci nekk ah donc boo ci yokkee leneen rek day ëpp. nañu nañu dindi ñi nga xam ne dañu ñëw pour euh, jaay taar euh, dindi ñi nga xam ne dañu ñëw pour sañse wane seen sañse mën nga sañse mu rafet mais aar nekk ci yow ñun li ñu soxla mooy aar bi nga génne ko am l'art de parler am écoute ah am jeu de visage ah jeu de corporel am lépp ñun loolu loolu lu ñu intéressé la jigéen bu rafet ci film nag yàqu ko mais nañu am fu baax fuñ ko teg mais bëri na ñi nga xam ne nii tey ñu donc dañuy génn seen milieu ñëw dugg ci suñu milieu bañuñu ko mais nañu ànd ak li milieu bi laaj waaw liñ ciy dugal noonu te nekku ci euh, kii boobu magie boobu nañ ko dindi waaw waaw ok. mais surtout colin gi surtout colin gi ak waxin bi des fois nga seetaan série yoo xam ne moom macha allah danga naan est lii sax ñun Sénégal la te ñun Sénégal fii dëkku teraanga la euh, mbay ngay naan bu mag kon war nañ la déglu war a déglu say conseil Euh, théâtre mën na rafet mën na nice lépp nice mais gis nañ ñu boole ci loo xamante ni daal mbay ñu la doon bàyyi daal nga am loo ci wax daal. gis nga Ngoné leen rek laa ciy wax gis nga colin bi nit ki dinga mel rek loolu lañ lay imposer foo mënti dem. am na koo xam ne boo ko xoolee rek da nga xam ne lii mooy casting léegi ki nga xam ne lii mooy castingam te nga soxla ko da koy dem nga wëri ko boo ko jotee nga indi ko te comme bëgguñoo dimbali nit ñi bëgguñu wane Sénégal bi ci suuf. Sénégal bi ci kaw lañ bëgg wane comme Almadi Cité euh, góor gi yaa ngi dégg donc yooyu euh, sali donc villa boo xam ne mi ngi noonu comme loolu lañu ñu bëgg a gëmloo doomu aadama yi ni moo nekk ñàkk amul te ci vie réelle bi soo demee yow seen kër am na ko étage troisième étage saa yu yeewoo day tiim koo xam ni mbaar la te amaana boo demee borom étage bi du dimbali sax borom mbaar mi bu tabaski baangi ni di jot toujours nga gis ku jënd xaru 800000 te ki ci wétam du tabaski te nga ne tabaski nga ci jamm tabaski nga lek sa xar ba paré bu ngone bo moytu sax nga jaar fa bal max non yoon la wanel ni ñi am nañu ñi ñak nañu senegal bi ni la togué ak né la togué nañi wané suñu réalité xolal euh, série yi nga xamné ay novelas ak yoy du ñu wan lu amul li am seen dëkk rek la ñuy wan réalité yi la ñuy wan boo demee chez les blancs muy jëkkat film yu mag yi muy cinéma mais lépp liñ lay wan ñoom dunduñu loolu parce que ñoom cinéma la ñuy def naan nga boo bëggee xool ci ñoom da ngay def téléfilm parce que téléfilm ak cinéma c'est diamétralement opposé kon nag nañu xool bu baax solin bi waxin bi est que théâtre mën nga mën nga jouer ba wax nit ki kàddu boo xam ni daanaka saaga la mais saaga bi dafa am fu muy jugee. dafa am fu muy jóge foo xam ni day commencé si suufu tànk yi di ñëw ba ci bopp bi maanaam nit ki dina la topp ba mu sës toroxal sa yaay saaga sa yaay def sa yaay lu nekk génne ko kër gi pare toppati sa jabar ba ba ba leneen am mu dellu si waat amna dal sa kaw amna foy waxe ak mom ba sa xol jog nga saga ko dañu xam saga boobu dafa nek saga bu naturel dañuy wax ni kat ki daf ko top top top ba mu seus ci mir wis bi motax mu réagir yoy man tamit dama koy beug mais saf saga saga saful saga saga saf vulgaire vulgaire saful vulgaire vulgaire legui nak sénégalais yi nga xam ni ñom yar nañ sen bop yar sen dom, am éducation bu normal xam nañ seri yi sétane ak série ñu dul c'est ça le problème Euh, mbay ñu gis na yow danga nga polyvalent Mbaye macha allah mbay tey mu génn njaago suba mu génn naar ginnaaw suba mu génn fu ne daal te loolu muy lu jafe mbay loolu noonu yow du nga ko judd waale don la wala daf la dab wala nu demee noonu. xam nga ñaari mbir dafa am lu ñor tab bi ak li gësam indi du benn euh, su ñuy wax jàngi métier dama na la 98 99 laa commencé kon du ay fo aar da nga koy jàng. jang ko motax bu ñala nekkal jigen nga nekk jigen nekkal goor nga nekk goor nekkal njaago nga nekk njaago dégg nga nekkal sereer nga nekk sereer jouer gardien nga jouer gardien mais lolu moy lolu moy aar so dege ñuy wax ça c'est de l'art moy lolu nga jekki tek transformer sa bop est-ce que xam nga nit ki dina transformer bopam jouer jouer jouer jouer ba série bi jeex mu toog ay plus de deux mois wala trois mois pour décharger wu maanaam li mu yanu woon mu dindi ko ci boppam kon nga xam ni yombul waaw mais nag gars yi bu ñu ko jëlee kaay ma toj fi kaay nga toj fi rek ngay am ñi ñu coow la deux mois trois mois après coow li jeex ñi nga xam ne dañoo liggéey seen aar gëm ko mais dañuy continuer dem seen yoon seen chemin kenn du leen téye moo tax képp ku ci jàng aar del gëstu muy góor ak muy jigéen waaw. mbay surtout liggéeyante bi mbay ñu gis ni léegi aar bi bëri na liggéeyante artistes yi kenn yéeneetul sam ñi ci yéeneente jàmm dañ leen di calculer liggéeyante bi siisante bi loolu loolu mbay loo ci xalaat milieu bi léegi ndax bu njëkkoon théâtre macha allah dafa rafetoon mais léegi dafa mel ni day bëgg a yàqu ndax liggéeyante beeg lu nekk ci am daal mbay. xam nga ngoone sànq da ma laaj lu doy waar nga ne ma dafa mel ni yow doy li ma lay gis ci milieu artistes yi bëriwul. ba wax nga ko legui wax nga ko legui ni man lolou sonaluma ta lolou taxul ma bañ leen a fréquenté parce que pendant 12 ans ma ngi leen di fréquenté mais man lolou yegul ci man parce que très sincèrement limay dem ci ngone mi liggey ko pour mu dof liggey ko mu baña avancer liggey ko pour mu baña jot limu wara jot mais man jëm ko def sama bop pour ma avancer mom momo gënal donc man si étape bobu dina moytu nak. parce que ñëppay moytu dinaa moytu yàlla laa gëm ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa fonk suma ñaari waajur bëgg sëriñ Touba sopp maam Abdou yaa ngi dégg bu baax li ma la amul lenn lu ma jaral may xool nit gisuma lenn lu ma nit ëppalee ba ma dem ci kii que ce di tudd sa tur wala di wax sa wax man bu la yàlla may oto dawalal bu la yàlla may xéewal ngay tabax kër tabaxal li tax ma nekk ci cinq ans yàlla joxuma ko yow nga nekk ci trois ans suñu borom jox la ko bu ma ko xamoon laaj ko ko wala bu ma ko xamoon wax ak moom mais xaw ma ko dañoo bind tey yemaluñu lu nit ki am na ko yéene moromam lu nit ki mel na ko yéene moromam loolu mooy àdduna comprendre nga parce que tey sama yaay génn na àdduna sama papa génn na àdduna sama maam sama mère ami samay proche yi nga xam ni sama famille dëgg dëgg dëgg dëgg nekkatuñ sama ginnaaw. mais toujours je gère ma vie xam fi may teg sama tànk lépp li nga xam ne waruma duma ko def déedéet te pourtant nag léeg-léeg nga toog mu metti parce que jafe-jafe àdduna day am mais toujours rek nga xam ni euh, yaay taaw yaa jiitu ñëpp topp sa ginnaaw ba pare àdduna défi la waaw da ngay da koy affronter muy metti nga dugg ci boo ci génnee nga xam ni fi nga jaaroon dafa metti c'est ça nañ gaa yi bàyyi ay liggéeyante bi xool diw xool ma sàmba avancé lul suñu liggéey te da lay tardel saa yu ma yeew di xool ngóone mais ngóone raw na ma lu bari saa yu ngóone solo ba jekk dama ko war a ñëw na ko ah, jànk li nga def dafa rafet góorgóorlul nekkal ci jàmm yàlla dina la dimbali baax boobu ma lay yéene te jóge sama xol sama borom moo ko fayee ma mel comme yow c'est ça. mais ngoone taa yaa ngi ci jàmm ci loo nekk nangam sangam bu ngoone demee kii li ma ko xamal lu ma ko neel looloo tax senegal bi tamit waaw c'est ça. dëgg allah waa Mbaye léegi ñu lay laaj ba xam mun nañ laa xaaraat ci fan yii néew ndax gars yi daa mel ni na mun nañ la fan si yeeg gépp ñëpp a ngi kaas. ah mbay ah, mbay gi mbay mbay gi metti na trop. mbay ah, ah lay xaaraat de nag moom loo ci xam. Euh, Ngoné Ndeye nee naa leen ak lépp lu ñu mën a gis na damay wax samay fans lépp lu ñu mën a gis nañu xam ni maa ngi ñëw man man mbay moom xëccoowuma place bi xëccoowuma yoon bi ba ma xëntewuma ndax dama am sama yoonu bopp man damay ñëw rek dafa curux rek gars waaw rek waa senegal xam ni waa ji ñëwati na jeex na tàkk waaw di la sant yow aussi di la gërëm ndax ku baax nga mooy li may wax rek yàgg nañu te lu yàgg dëgg la te yow ak man mii it dinañ ñu gis ci leneen ah ñoom nañ ko xaar. waaw ah, daal mi ngi noonu. macha allah Mbaye euh, suñu temps yi ñu amoon jeex na euh, ñu bàyyi la rek nga nuyoo àdduna ñu nga def sa dernier moo tàggatoo ak askan wi. waaw euh, damay damay dama leen remercier ba ba pare remercier sama waaju baax ji nga xam ni. ki moom Baye Jili ken demul mu dess borom bax la eh, lu yag deug la borom Touba eh, ki moom dafa yag dafa yag bu mu jappé ba légui bayul te xamna ni suma xarti bop la kon ci lu mu nek rek na tek sama loxo di gërem wa jaxaw bu ci na carte bi di jaxaw suuf fi ñu nek nak di avi pro maw doomu jaxaw doomu Thiès Rahman Boy euh cheri Sabou deug yalla ki nga xamni nak boo leen bëggee ginaar yu baax dina ñëw fii glace yi ñam ngeen ci boo bëggee defar bopp bi jaaral nii madame Boye geral la ko ba mu baax di nuyu suma xarit bi Baye bi Fall Vito Meng di ko ziar bu baax a baax as Diallo depuis états uni di nuyu ñëpp di nuyu amadu Koli ah. di nuyu Abdou Mballo mbay ba di nuyu ñëpp ah bàyyiwuma kenn njoogu Mbay Mëndiir ah sama gaay yëpp di leen ziar di leen bëggee kontaan bu baax. a ah, ngoone nag sangooguma TV damaa yaakaar dañoo sangu nañ TV lañ waroon wax parce que gis nga émission bi duñ ko nëbb dañoo départ rek mu taw après ñu sangu ñu sangu ba pare mi-temps daal di ñëwaat mais sangu <laughs> sangooguma TV ba waa Sénégal xam ngeen ni sangooguma TV ñoo fi ne ba beneen yoon ëpp na. <laughs> Mbaye kon ñu ngi lay sant di la gërëm. macha allah waaw kon nag euh, li ñu amoon ci waxtu jeex na. Euh, ñu ngi leen di tàggu ci beneen émission ci yaatal muy gën a yaatu di gën a leer. ak euh, Sango Gouma TV lépp a yaatu macha allah ba beneen yoon merci.